Euh, mbokk internet yi sbt média point com amaan nañu mbégte ak kontaan ñëwaat fii seen émission coowal politique tey nag ñi nga dalal benn responsable boo xam ne si ni mi ngeen ko ci sbt euh, Baye Tafa bu euh, bi nekk Daaru Salaam Baye Tafa sbt ñu ngi leen nuyu SBT Media TV maa ngi leen di fay di leen nuyu di nuyu ñi leen di seetaan ñëpp di rafetlu seen liggéey bu baax di kontaan. ci mm-hmm. seet si bi. Mm-hmm. mu mel ne que Baye xaw na la ko ci dégg la moo waral loolu. waa li may wax chaque jour moom laay répété waat Baye Tafa xam nga nekkul di politique rek xam nga dama yor sama liggéey di ko def xam nga yor loo xamante ni dañoo nekk sama ginnaaw il faut may may raar <laughs> comme ni ñu koy waxee il faut may raar parce que liggéey bi moo may jàpp mais du dara comme li ma leen di wax chaque jour su ma sañoon heure boo leen ma woowee rek damay toog pour waxtaan ak yéen. Mm-hmm. mu mel ni que président bi ñu ko falaat ak léegi deuxième mandat bi am na un an. Mm-hmm. boo ñu doon defal bilan bi lan lay nekk. ah bilan bi bëri na parce que bilan bi déjà def naa xam suñuy toog di wax bilan président moom duñ fi jógee parce que liggéey na ci côté ndaw ñi liggéey ci côté ah, yoon yi def ci côté transport bi ci jigéen ñéeg lépp ñëpp gis nañ ko. ci ay dige. non non ci ay def. ñu gis non ay dige ci ay dige. ci <laughs> def ñu gis xam nga DER DER defe naa ne moo ko fi indi pour ndaw ñi la pour ñun jeunes yi la n'est-ce soo demee ci côté ndaw yi pour gàttal rek pour tënk quoi. comment ci yoon soo xoolee der moom da ngeen ko doon politiquer pour jox nit ñi pour ñu ñëw votel loolu kese la woon mais amul benn deux lay jox pour nga ñëw pour nga ñëw mën a voté non non da ngeen ko defoon rek pour jënd élection yi rek la woon il faut ngeen di dem di gëstu ji xam nga il faut ngeen di dem di gëstu ji parce que der ba tey mi ngi continuer déjà mi ngi sax collaborer ak ministre de la jeunesse actuellement comme am la pour jàppale ndaw ñi il faut ngeen dem kon di gëstu ji parce que DER mi ngi continuer xam nga bu ñu naxantee pour yàq xelu nit ñi président li mu fi liggéey bëri na xam nga déjà ñun Guédiawaye avantage tey un an yi mën nañ ci wax BRT bi déjà travaux yi ñi ngi commencé comprendre la. non ba tey ba léegi si wax lañ toll rek. non non ba léegi ci ay wax lañ toll incha allahu rabi dina commencé ci mois bi su neexee yàlla dèjà ñi ngi ci commencé travail travaux yi ñi ngi ñu war a yëkkati ñi ngi leen di yëkkati kon dèjà ñun kon dañuy wax ci un an yi ñun rek ñun cun banlieue bi dèjà loolu gis-gis la ak yeneen yi nga xamante ni mën nañ koo wax waaw. comme lan comme bis mel ni ban. non bëri na bëri na lim xam nga tey jii comme si que suñu bëggee jël pour nekk fii wala su dee loolu moom moo tax moom it pour ñu mën mën nañoo toj xam nga li fi président def moom xam nga mënuñu taxaw ci un an yi rek xam nga nit ñi ñooy wax mais chaque jour li may wax moom dafay dafa boole liggéey ak pat waaw. teer bi nga xam ne tàmbali ngeen ko boobu léegi te président Ousmane Sonko waxoon ne teer bi moom maanaam fii ba nga xam ne président daf nekk bu jógee fii maanaam benn kii du ci daw dafa mel ni moom Sonko mi ngi bëgg am dëgg seen kaw. xalaatam la wax rek xam nga nit ku nekk libre nga pour wax sa xalaat mais li ñu may wax chaque jour wax su wax su dofee moom it nopp yi koy dégg war a wér. Hmm. xam nga su ñu jëlee milliards yi def ko fii ci transport bi muy TER bi xam nga indi loo nga xamante ni mësta am Sénégal ñu nekk ci di liggéey bientôt incha allahu rabbi président dina ko inaugurer mu daw ci kàttanu yàlla kon su taxawee di wax fii ak président di fi jógee du daw yaa ngi fi déjà journaliste nga toogal seetaan incha allah yu yàggatul dara di ko gis muy daw. Mhm. mu mel ne dégg naa sànq ngay wax ci biir DER bi na ba léegi DER bi mi ngi continuer est ce nekku ne DER bi mooy troisième mandat bi nga xam si ni ñu ngi koy laam non troisième mandat moom xam nga du du du li ci président tontu laa ciy tontu maanaam duma ci wax wii duma ci wax non parce que xam nga lan moom moo tax mooy sénégalais yi dafa am ñoo ñoo xamante ni liggéey taxu leen jóg yàq moo leen tax a jóg tey suñu taxawee ni troisième mandat mënut a nekk ñu ne dina ko dina ko nekkal soo taxawee ni dina nekk ñu ne du nekk kon li li li ñu war a def ñun ñëpp mooy toog di xaar président nañu toog di ko xaar. Ah, moom dina dina tontu bi kay dina leen ko tontu parce que déjà lu lu leen tontu coow am su tontoo ni du ko def ñu ni dina ko def day wax rek su tontoo ni da koy def ñu ni du ko def kon mieux vaut na ñu liggéey ñu xib suñuy bët toog di xool moo gën. Mm-hmm. Mm-hmm. mu mel nag bokk na ci actualité bi Guy Marius Sagna bi nga xam ne mi ngi xeex courant bu cher bi ñu jàpp ko tëj ko si kaso bi moo ko ay moromam te ñu génn ay moromam bàyyi ko fa la moo waral loolu. non Guy euh, xeexul courant bu cher. maanaam dafa ah. yab dafa yab askan wi yab sénégalais yi. lan lay xeex kon. non xeexul courant bu cher. parce que lan lay xeex. noo waaw dama ni sooy xeex courant bu cher am nga possibilité pour xeex ko kenn terewu la pour xeex ko su dee da ngay marche fii président Macky Sall terewul kenn mu marche chaque jour ñu autorisé fii ñaata marche lañ ko def ci ay moroomam kon moom xeexul courant bu cher nit ki nag li ñuy wax chaque jour soo xamadee dañ lay yar. parce que moom yabul Macky Sall askan wi la yab parce que léeg ñun Sénégal ñoo ko moom du Macky Sall moo ko moom parce que déjà ñun ñoo fi tegoon Senghor ñun ñoo fi tegoon Abdou Diouf ñun ñoo fi tegoon Ablaye ñun ñoo fi teg Macky Sall kon yabul Ablaye ab yabul Macky Sall ñun la li mu def affaire yabaate la te suñ ko bàyyee nii ëllëg keneen def ko il faut ñu teg ko ci yoon. comme ki muy waxal ci palais bi la nekk kay am na droit dem bu fa jàpp naa ne. mais ki muy waxal kilifa sénégalais yi la ñun ñëpp suñu kilifa la. mooy dañ ko war a jox benn cër ba nga xamante ni jox ko benn dayo boo xamante ni jox ko benn gëdd ba nga xamante ni te yow waroo fekk fi nga waroo dem fi nga xamante ni ñun ñëpp ñoo ko moom ñun Sénégal ñun ñëpp ko moom nga fay def n'importe loolu kenn rafetlu ko moom si boppam moom si boppam ay bokkam wala ñi ko dar suñu waxee dëgg xam ne li mu def juum na nit ki nag su juumee da nga koy yar ngir doo ko yar ngir moom de da nga koy yar ngir ñi topp ci ginnaawam ëllëg keneen bañ ko def est-ce que nekkul na ku ma am ndey ku ma amul ndey moo am ci àtte bi parce que bu ñu libéré ñi nga xam ne moom la jàpp loolu yoon moo a wax mu yoon moo ci mën a wax ci loolu comment man li may wax sama gis-gis te li ma wax man la engagé la concerné. non Sénégalais Sénégalais yëpp Sénégalais yëpp Sénégalais yëpp moom politique lañ ko jàppee Sénégalais yëpp. non mais loolu la pouvoir noonu la pouvoir lu mu def dañ naan day politique parce que dafa am ay opposition yu fi nekk mais ñooñu loolu rek mooy seen arme parce que ñoom wanuñu benn programme du programme boo xamante ni dañ ko wan sénégalais yi wala du loo xamante ni dañ ko wax wala personnalité boo xam ne dañ ko wan sénégalais yi ñoom lu ñu fi nekk mooy lu président def ñu ni day politique mais argument boobu rek la am c'est normal. Mhm. mu mel ni que mu mel ni que fan yële gis nañu Cojer bi Géejawaay bi nu wootee euh, ñëpp ñëw autorité yëpp ñëw nañ ñu daan la gis nga daan def mobilisation bu am mu mel ni que ren gisuñu la moo waral loolu. man comme li may wax man man chaque jour ma wax ko man du ma APR du ma COJER du man Aliou la te dama fa waroon a teew parce que Aliou la man Aliou Sall moo ma ñoox chaque jour ma wax leen ko mais dama am ndog-ndog moom moo tax ñëwuma fa. ndog-ndog comme comme loolu rek nga ñu matee suñu loxo. kese non mais dama am ndog-ndog ça veut dire que dama am ci leneen lu ma nekkoon la nga xamante ne te man ma bañ fa ñëw du ta tee mu am ma bañ fa ñëw moom it day am kon loolu kese la mais amoon naa yéene pour ñëw fa mais dama jàppoon moom moo tax. ñëwuma fa. far nañ ci ay weewu béy ñu nekk ñi nga xam si ni ñoom ñoo wër Alioune la ñu si ëpp maanaam yow ak ñoom jubootu ngeen la ma waral loolu. non man nag dama leen a dama dama dama xa kiiwul dama duggantewul ak ñëpp cent pour cent bay xuloo nit ñi di jiw wala ñuy juboo <laughs> xam nga nit ñi ñoom ñooy wax rek parce que xëy na comme li ma wax ñoo

ñoo Baye Tafa neexootuñu loolu moo tax Baye Tafa gisuñ ko fa. no moom déggool mënuma di xuloo xam nga koy xulool mooy day fekk kaw nga xamante ni da ngeen a am benn euh, nu mu tëti euh, da ngeen am benn dem leen tebeeg wala dikk leen tebi man liggéey moo ma boole ak ñoom xuloowuma ci kenn xam nga da amul loo xamante ni sama yëfi bopp la ma nekkoon ci moom moo tax dew ma fa mais Cojer su wootee dafay kii parce que déjà Aliou Aliou mooy seen kilifa fii. parce que mooy kilifa képp kuy APR nekk Géejawaay Aliou Sall mooy sa kilifa kon suñu wootee ñun dañ fa war a teew mais dafa am ci yu ma ne mais ay xulook nii déedéet loolu amul wax dëgg yàlla loolu amul man gisuma ko boobu. dama daan gis bu ñu masaa daal booy nuyoo nga nuyu sama ak Ablaye Mbaye seen diggante lan la. Ablaye toujours chaque jour chaque jour te duma jóg di ko di ko bañ a nuyu dama koy nuyu chaque jour <laughs> mais xëy na débat bi ni ñu dugg moom moo tax rek <laughs> waaw mais Ablaye suma kilifa la comme ni Aliou nekkee suma kilifa Ablaye Mbaye noonu la nekkee suma kilifa voilà suma kilifa la moo ma jiitu ci politique te moom ma indi ci ci ci ci Aliou suma kilifa la suma kilifa la mës a nekk nit la ku nga xamante ni ku ma ku ma ku ma ku ku ma naw la ci jikkoom ku ma naw la ci doxalinam xam nga du du avant politique politique boolewuñu leneen moo ñu boole politique ñëw boolewuñu mu nekk suma kilifa comme ni ma Aliou di wax bàyyil ma bàyyi defal ma def moom it noonu cër googu la am ci man. Mm-hmm. beneen faara ba léegi seen émission cool politique ñi ngi ak Baye Tafa bi nga xam si moom moo nekk daal salaam mais Baye Tafa mu mel ni que euh, pund bi wëree maanaam cool moom ba tey day gën yëngu fii géejuwaay mu mel ni que actualité bi bokk na si euh, plainte bi nga xam si nii def nañ ko ki nga xam ne moom mooy Ahmed Aïdara yow en tant que responsable bokk si Alioune Sall comme ni nga ko waxee Alioune nga xaw ma mm. euh, naka nga gisee loolu yaa ma ko wax <laughs> plainte bi yow yaa ma ko wax non plainte moom fi ne ni actualité yéen ñëpp dégg ñëpp dégg nañ ko amul kenn kuy yeewu géej waaye te déggoo ko man man yow yaa ma wax ni tey sax ci buntu mairie bi am na ñu fa demoon di di yëngal non man yow yaa ma wax ni ma plainte bi daf Aliou dafa plainte mais man moom yëguma ko waaw mais seen mais seen diggante ak moom ku nekk xam ne yàgg naa am ay coow ndax Ameth li mu bëgg mooy géej géejawaay gii nga xam ne moom nee na moom moo ko moom yaa ngi dégg na ko waaj abal mairie bi génn abal ko te na waaj na waaj démissionné <laughs> ah mais la ngeen xaar ci loolu waaw comme li may wax chaque jour xam nga il faut parentaay ñu ñu ñu ñu ñu dellu siwaat ci suñu bopp parce que déjà ñun ay jullit lañ te bëgg dara ah bëgg dara bu mu tax nga bu mu la jaral ngay wax lu dul dëgg bëgg dara bu mu la tax ngay xas doomu aadama parce que yàlla bëggul kuy xas doomu aadama maire yi du ay wax moo koy joxe nit ñi ñoo lay wóolu benn nga tegal leen programme boo nga xamante ni doy na leen sa jik seen jikko neex la ñu xam ne yow am nga niveau boo xamante ni mën nga doxal géejawaay ñu jox la géejawaay mais du ay xaste wala ay saaga wala ay ŋàññ moo lay jox géejawaay. non Baye Tapha nag Ameth saagul kenn xasut kenn dafay dénoncé rek kan ni géejawaay ni ko Alioune Sall yoree di caxat caxatee alalu askan wi loolu lay wax. alors jàpp naa loolu loolu politicien bu nekk am nga si droit. Ah, moom en tant que koo xam si ni ci opposition la nekk am na droit xool. Hmm. bu fekkee ne Guédiawaye Alioune Sall liggéey na mu ne liggéey na bu liggéey waa mais dama la caxat caxatee bi ñuy wax moom moom sax laa wax su dee moom moo wax li muy wax loolu amul du dëgg benn ñaar tamit mooy ñun waa Guédiawaye ñun ñoo bëgg Aliou ñun ñoo doyloo Aliou parce que def na fii lu nga xamante ni benn maire defu ko fi. te du ko fi defati voilà comme li nga wax léegi day politique comme li may wax chaque jour nit ki sooy politique kay da ngay wàcc ni da ngay politique man benn affaire dafa am mooy dañoo am suñuy rakk yoo xam dañuy jàng ñii dañoo bëgg nekk journaliste ñii dañoo bëgg xëy na di def comme li muy def li muy def mooy revue de presse yor laa di wax kon dañ ko war a rafetal di ko woddu ba ndaw ñooñu. ti ñëw xam ni lii liggéey la bu noobul ñu xool ci ñooñu jàng ci mais suñuy doxalee nii xale yi foog ni lii mooy liggéey bu rafet loolu yaa ngi yàq xale yi te dafa am ndaw ñu bari ñoo xamante ni dañoo opté pour nekk journaliste bëgg def li muy def kon da ko war a rafetal pour jàngal ñooñu mhm. non Ahmed moom li mu war a def moom mi ngi koy def donc yéen est ce que yéen li ngeen war a def def ngeen parce que li mu leen toppee yomb na léegi yéen jaay ngeen jaay ngeen ak jaayu ngeen mais génn leen mais xam nga loolu dafa am li nga xamante ni comme li may wax chaque jour dafa am loo xamante ni wax su dofee nopp yu koy dégg war a wéer xam nga jaay nañ maire yi du ma ci sori jaay nañ maire yi ci sori parce que xam nga lu tax du ma ci sori parce que loolu ku ko dégg xam ni loolu du waxu du wax ju tegu fenn comme am la du wax du tegu fenn waaw. loolu du ma ci sori. Hmm. parce que képp ku yor xel di xalaat rek soo ko déggee di nga xam ni wax ji waxi kàcc la mais du wax boo xamante ni tegu na fenn. no Baye Tafa nag ama respect parce que Ahmed nekkul n'importe qui kilifa la ci réew mi. non non non waxuma Ahmed dama ne. wax ji laa wax ku ko wax dangay xam ni lii wax ji ñuy wax du dëgg waxi kàcc la man waxuma Ahmed waxuma Massamba dama ni ki wax. ni wax jii ku déglu loolu xam ne lii ñuy wax ni du wax dëgg gis nga bu ñu gis bu ñu bu ñu nax nit ñi gis nga maas dafa am benn affaire bu ndaw bu ma lay wax ñun ay ndongo daal lañ nekk ñu jàngal ñu fi ñu war a jànge yar ñu fi ñu war a yare ñun du ñu dépassé du ñu wax mais gis nga chaque jour nit ki su waxee lu dul dëgg danga koy wax ni li ngay wax du dëgg abilo wa taba maana anumaalo wa ma kasab kasab lan lay tit fetti tekki ak fen la mu ngi ci biir alxuraan kon nit su waxul dëgg da nga naan ko lii ngay wax du dëgg. Hmm. loolu rek la.

bëri defu ko ci. bu doon téeméer la mooy lan bëri na bëri na. ba pare ba pare for naa ci for naa ci wéewu bay ñu nekk seen terrain bi terrain fii euh, Daaru Salaam. ba bëgg na fee jël andi marché foofu mu lan ak lan affaire yooyu noonu. non <laughs> xam nga gis nga xoolal Aliou li may wax chaque jour li mu def géejawaay nit du ko fi def te dootu ko fi def parce que li may wax chaque jour nit ñi di bañ li may wax ne Aliou Sall ku bañ mu nekk sa maire dina nekk sa maire yaay wala sa maire baay wala sa maire doom parce que Aliou Sall defar na école yi ba ndaw ñi am foo nga xamante ni dañ fay jàng du ñu am benn problème Aliou Sall mi ngi ci troisième âge yi kon ku bañ mu nekk sa maire yaay kon nekk na ku bañ mu nekk sa maire day nekk sa maire yaay parce mi ngi jàppale troisième âge yi ñu góor ñi muy ñu jigéen ñi mi ngi ci ndaw ñi alors lan mooy problème bi li Aliou Sall mi ngi def bay def la nga xamante ni sax du rôlu maire ngir bëgg gi mu bëgg Géejawaay kon soo taxawee di wax ne li mu fi digg woon lan la fi digg Aliou mos sa diggee maire du diggee sax maire pour lan ngay diggee ñoom ñu koy ñooy taxaw di amuñu benn argument amuñu benn projet. non non amuñu benn moom bu élection jotee fii ngeen wër nit ñi naan defal lii naan defal lii bu ngeen ma joxaatee mairie bi lii. moom de te li digg yi ngeen def du ngeen ci def dara. moom a ngi mooy ay bu ngeen ma joxaatee réew mi lii def ay problème rek ngeen fi ne mais loolu dafa engagé ci def te duñ ko wax Aliou dama ni la diguñu woon dara comme te defar na géejawaay ba ñëpp gis ko. xam ne géejawaay koo xamoon géejawaay gu njëkk ga ak géejawaay gi bokkul. comme xam def la nga xamante ni sax maire du du waru maire day dem. di lijjanti ay ay ay nitam ñoo nga xamante ni dañuy ñëw pour jàppale ko pour mu defar géejawaay loo xamante ni du rôle lu maire mu koy def. kon lan mooy problème bi léegi léegi léegi defar géejawaay gi mu defar géejawaay kumba am ndey kumba mu ndey da ci am. parce que Sam Notaire ku gis tali bi yoon bi mel noonu nga xam as yoon la yaa ngi dégg mu defaree bu defaree bu defaree géej waay yëpp bàyyi foofu dañuy wax nag kon moom la faaw ngeen dem di gëstu parce que tali du maire moom moo koy defar. waaw moom moom ni mu def ni ba defar ba defar géej waay yëpp. non dama ni. waaw tali tali du maire moom moo koy defar. mais moom mooy ville parce que moom mooy moom mooy moom mooy maire ville. moom mooy maire ville d'accord mais du defar tali. maire ville du defar ah, tali. d'accord même bu defaru dama la même bu defaru tali. même bu tali tali nekk. Aliou defar sax ba defar foo xamante ne sax dama <laughs> waru koo defar <laughs> xanaa kon loolu. mais léegi léegi lan moo lan moo tax boolu Sam Notaire gi. non mais déggoo lu ma la wax loolu tali bi loolu du dinañ ko defar incha allah rek président gis nañ ko xam nga te dinañ ko wax mu defar mais tali bi du du maire du maire moo ko war a defar. même bu même bu engagé wul même bu ko maire même bu ko maire defarul. mais dafa ñu defar géej waay yëpp parfait ay ruq-ruqaat a ñu non yow li nga war a wax mooy li nga war a wax mooy Sam maire Sam Notaire boobu nga war a wax. parce que <laughs> maire boobu moom maire boobu moom man pour man maire sax amul Sam Notaire pour man loolu mooy profité ji pour man maire maire sa am Sam Notaire parce que maire la maire la boo nga xamante ni moom xam nga ñun ñun waa Daaru Salaam ñun sentiruñu sentiruñu ni am nañ maire quoi am nañ maire quoi parce que mair ba fa nekk moom wax dëgg yàlla kooku liggéeyul dara waa ñun loolu la ñu war a wax liggéeyul dara xam nga du du man bokk man personnellement man ma ni ñun ñun Daaru Salaam am nañ maire quoi Sam Notaire ñun personnellement parce que du ci ndaw ñi du ci cadre bépp parce que Alioune Sall mooy patron te Alioune Sall jàppale ko. mooy maire ville. non non non d' moom commune bi la yor mais. waaw Alioune Sall yilif moo yilif Guédiawaye. waaw yilif Guédiawaye. mais li muy war a def Guédiawaye mi ngi koy def Guédiawaye mais Alioune Sall. defaru tali. tali état koy defar tali ni mu def dimbali yeneen maire nga xam si ñoo ànd ak moom yeneen. dimbali bu nekk dañ lay votel sa budget mairie boobu maire boobu moo liggéeyul rek maire am na te Kanté ñëpp xam nañ ni liggéeyul liggéeyul sa am notaire. ñun sa ñun waa Daaru Salaam santruñ te te bala ngay xam ne li ma lay wax dëgg la mooy élection maire moo ko fi bàyyi su ñëwee dañ naan ko coppet sànni fële. parce que liggéeyul comme ne élection maire bàyyi yéen ñun non ñun ñooy toog ba mu neex ñu ñu jox ku ñu neex. incha allah parce que Guédiawaye moo ko bëgg du Alioune Sall de Guédiawaye moo ko bëgg Alioune Sall su naree dem sax ñun ñoo koy jàpp ni doo dem parce que mooy sunu njariñ non Lat Diop fi neen moom géej waaye moom fi neen Lat Diop Lat Diop nag mooy borom géej waaye moom fi neen moom fi neen wax leen tàggoo leen rek fi neen nii <laughs> moom yéen da ngeen kii Lat Diop moom mooy borom géej waaye fi neen amul ah. di di nuyu encore une fois comme li may wax chaque boo leen bëgg euh, euh, dama bëgg heure boo leen ma di ma jot parce que yéen comme li may wax man dama gëm ndaw ah, boo xamante ne day teg dara ànd ci ak yar ànd ci ak fulla ànd ci ak ak fayda ak gis-gis bu rafet man dama gëm loolu kon SBT Média TV li ma leen di wax laa leen wax chaque jour yàlla na nekk télé bu mag bu gën a mag ci télé yi xam nga man dama gëm ndaw buy liggéey yéen ca kaw sa kanam rafetlu naa seen liggéey ngeen bàyyi nag xam nga tiire ak gars yi ngeen di dugal ñi nga xamante ni dee leen wax ni ñi bëgg euh, ñi bëgg maire ville ñi bëgg maire nañu dem indi programme moo gën géejawaay fii la ñëpp fii la ñu bokk géejawaay fii la ñëpp bokk nañu indi programme teg ko bàyyi wax ji bàyyi saaga yi bàyyi télé bi ñu nekk ak rajo bi ñu nekk di wax di xaste su doon xaste rek ah kon yàlla mi ñu bind sax xaste wuñu ah kon mën nañoo xas parce que chaque jour am nit def jëf ju ñaaw wala mel na ne ah nañu bàyyi yooyu loolu baaxul. ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi leen di jaajëfal bu baax. Mm-hmm. di leen nuyu. di leen sant bu baax a baax a baax. Ah, jërëjëf mi ngi noonu seen émission coowal politique la woon ñu dalaloon Baye Tafa responsable des jeunes Darou Salaam nekk ci ki nga xam si moom mooy Alioune Sall gis ngeen ko kaay kaay bëri na da koo daw parce que <laughs> bi. gis nga ko ah. pelante bi moom nangu cee wax. te gis nga te pelante bi bokk na ci tax non non non Baye Tafa ma bokk na ci tax ñu ñëw fi comme nangoo cee prononcé wu nag. non yow yaa ko wax ba mu leer naan ñi ba xam waa nekk mu jékki ba tam incha allah ngeen jëf di <laughs> daje beneen yoon jërë ngeen jëf